sëriñ basiru Mbàkke moom sëriñ Xaadim Awa Ba ndigalu magam ak njabootu sëriñ Xaadim Awa Ba gépp sëriñ saliw ay rakkam ñu ngi nii taxaw ci wetam ak i doomam ci la sëriñ basiru mi nga xam ni moo yore kàddu kë sëriñ Xaadim Awa di porte parole gannaaw ba mu amee ndigal lu bàyyi ko ci kilifa murit yàlla na yàgg sëriñ Muntaxa ñaari téeméeri million ya mu defon jox ñepp ndigal ni luway man nako def lolu motax serigne basirou mu serigne khadim awaba porte parole keur gi di doomu daara it def kokki def ndigal loli nga xamni mo bayiko ci serigne muntaka li ngeen jakar lol di di suukar di café di dewlin di sabu di rey raxasukaay lépp ci dooley boppam ak ñàqu boppam mu toppatoo ko andil ko Cheikh Mamadou Lamine Bara. Serigne Bachirou ñu duñu tuuti seede ci moom ëpp lu seede ci moom ndax moo ñun ñooy moom lu ci moom mu ngi ci nun lu ci nit mu ngi ci moom moo gën ci nun kon ñun bu nekkee frère nekk euh, mbokk ñu bokk bàyyi bokk ma mbokk lépp ay wëllëre ay xarat lañu kon nak in waa alxuraan it maa ngi ma ngi wax len ni yen ñep yen ngi tew gis ngeen taranga ji ak wa koñ bi ak ñeneen ak ñeneen na ku ci ne fas sa ñaani yalla ndax mom rek kay joxe nak ci barke yonent bi nga xamanteni ni dafa wax ni ba ñaan boromam mom khadim rasul daawtuka allahumma ya mujibu bi jahi man bi jahihi tujibu yalla ma ngi lay ñaan man Serigne Touba ci ki nga xamante ni ci ngay nangoo jomay rasulullahi kon yéen waa alxuraan ngeen ñeen yàlla sëriñ Bachir yàlla yokk ko sàmm ko aar sëriñ Bachir kenn du ni guleet ci li muy def Kébémer gépp xam nañ kan mooy sëriñ Bachir sëriñ Bachir ji wër na Sénégal ndax bu ma nee Kébémer rek damay mel ne damaa ràcc jëme sama côté waaye danaa jëm ci sama côté mais sëriñ basiiru ku xam na ne teranga ji muy def wër na Sénégal guy mbind xam nañ kuy sëriñ Bachir. Touba gépp ahlu Touba xam nañ kan mooy Serigne Bassirou sëriñ Saliou léegi la may yónnee léegi laa dem ci moom yónnee ko li ma Serigne bi jox léegi mu ne ma soo demee lu cant ma a ta mu tàmbalee ba ci suuf loo ci xam ci lu baax rek na ko wax nee na ma Serigne Bassirou lu may bëgg xalaat wala lu may bëgg a def wala loo xam fekk ne ma koy tàmbali loolu Serigne Bassirou yeggaleel na ma ko kon noo sant yàlla bu baax di sant Serigne Bassirou ci loolu mu def sunu koñ bii nga xam ne mooy mbaasin ak li ko wër lépp ci Kébémer Serigne Bassirou nun xamatuñu korité lu am xar di jaay lu mu jar xamatuñu lu ceeb di jar xamatuñu dawlin lu muy jar bu tam xarit na naka noonu bu bu lu tabaski daal tabasket di lay def ku ñëw mu dimbali la ci li nga am. Serigne bi moom ñi ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wax ni lii xëy na da ngeen cee dal tey rek mais yàgg naa am tey def naa ba mu daan amit moo ëpp lii am tey. yàgg nañu ko defal su ma juumul ñi man ci li ma xam muy jaar ci sama loxo mu ngi ci fukki at ak juróom mu di ko def di commencé woon ko ci dugub kese di ko def di ko def ba tey jii képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo fii ci koñ bi mun umee koor sëñ bi moo la amal li ngay woore ba korite su korite mu yëkkati ndawal ko doy sëkk jox la ak la muy àndal suñ eggee ci tamxarit mu commencé jël cere ak la muy àndal ak ndawal jox la maanaam sëñ bi lekkul bàyyi ñu tey su boobaa du ko sax fekkee te la ma ci gën a neex ci jëf ji mooy su koy jëf min wi koy commencé su ma koy def borom keur yi mako jox ñëpp ay nelaw day kenn ku ci nekk damay feug rek ke nelaw rek genn ma jox ko lima señ bi yoni nga daal di farano bo xeye xamni señ bi mo la ko jox te sax buma la koy jox sax duma ni señ bi na xam sama jëm du sax manan señ bi jox ndax ya, min nan ma amna ci ño xam ne dinaa la jëkëti jëf ji jox leen ko yalla minuti mu xam ne ni dañuy jooy ba dama am kersa ndax fam leen ni fekk xam nga ni jamono ni mu naqaree nga yëkkati saakub ciep ci kumte koor ak la andal nga jox ko ko kooku defal ci guddii du nelaw ndax mbégte kon sëñ bi yow lekkoo bàyyi ñu te rëcc ñu woon looy dëkkeek ñun. sëñ Basiiru li nga def nii def nga jëf ju rafet joo xam ne maanaam lii lañ doon séntu ci ku mel ni yow ndax tey eh, buñ tollee ci jafe-jafe boo xamante ni jamono dafa dafa dafa dafa dafa xaw a eh, am ay tartar yàlla wàcc ak yàlla wàcc ay natt yoo xamante ni daj na daj na àddina su boobaa soxla kilifa goo xam ne dana am taxawaay te jege ak njabootam te yënga fi nga ne. njabootu daaray alxuraan yëngani sa njaboot la yëngani yow it kenn nga ci ñoom mais yëngani yow maam ñoom sa njaboot lañ te njaboot nag bis ba muy gën a fàttaliku ak njaboot bi muy gën a fàttaliku kilifaam mi ngi ci maanaam bu tollee ci bëtam xong wala mu tolle ci gis aw xiin xam ne xamul wala lu muy taw lu mu doon kon def nga taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la. li nga xam ni Serigne Bass Serigne Xaarim Awa Ba mi ngi koy defal étudiants yi nga xam ne ñoo nekk université Cheikh Anta Diop muy lu baax sëñ bi mi ngi ñuy wuyu ci woo buñ ko woo muy ay ndimbal yum ñuy defal te loo xam ni amul ab ci loolu ci lañ ko joytu woon ni ko étudiant wu Kébémer yi kat soxla nañ loo xam ni bu ñu ko amee dinañu war a mën a fayal ay weer ci kër gi nga xam ni moom la ñu jël dajale fa étudiant wu Kébémer yi sëñ bi nangul ñu ñaan boobu ñu ko ñaan tey nag la ñu woo bi mu ñu woowee tey nag mi ngi ñuy jox benn chèque boo xam ni mille francs moo ci nekk ñuy leeral mbooloo mi rek ni ci turu maam Diarra Gueye bi nga xam ni moom mooy présidente amicale bi ñuy xamal mbooloo mi ni loolu biñ ko ñaanee sëñ bi dañ ko ko ñaan pour ay weer yu ñuy fay ñuy seedaloo mbooloo mi ni du xaalis bu ñuy seddoo du xaalis bu ñuy jox kenn wala xaalisu ñëpp la. toog ci kër yi toog ci daara yi dafa am lu muy laaj. il faut mu am ay mesures d'accompagnement na am président ma ngay def la muy def waaye tamit ñi nga xamante ne bi ci askan wi lañ nekk bokk ci biir euh, askan bi ku mel ne sëñ bassiru dëkk Kébémer gii moom it mi ngi def wàllam bu baax a baax a baax lee ñu fiy seen muy ceeb muy dëwlin muy kafe muy vermicelle yooyu yëpp sëñ bassiru dana ko jox mbooleem daara joo xamante ne bi yaa ngi ci biir commune Kébémer yamul ci loolu de ndax ndimbal lu rëy la bañ dalee recevoir ay ndimbal ba léegi daanaka si ñuy joxe gisaguñu joxe bu toll nii jëf jii nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké da koo jëfal askan wi jëfal ko dëkk bi jëfal ko koñ bi loolu sëñ bi dafay bëgg mu leer ni jéggiwul fenn bàyyi koñam tàmmaliwul fenn bàyyi koñam li muy jëf ñii ko suñ borom booleel ñuy ay dëkkandoom euh, jëf ji nag jëm ci wàllu daara loolu rek lay seppi li may wax mooy li jëm ci daara ndax boo xoolee suñu ginnaaw gis ngeen ni ceeb bi euh, alaaji wax na ëpp na fukki ton ak juróom waaye amu ci lépp lañ génne xam ki génne lépp kon yaag naa dootu dellu fa nekkoon bu noppee ci daara yi ñëpp la ñuy jox maanaam ñi ci xaj mbaa ñi ci war a am 3 tonnes 800 la jox 45 internat ñoo nekk Kébémer 45 internat yu am na 1284 donga junni donga ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti donga mooy ñi sëñ bi di dundal ak 250 litres dëwlin ak 250 kilogrammes suukar ak deux cent cinquante kilogrammes euh, euh, li nga xamante mooy pâte ak cent kilogrammes suukar ak cent paquet biscuit ak cent mille francs transport jox nit ki yomb na waaye jox nit ki nawloo ko moo jafe xam la mooy nawloo gi dañuy pëndub tànkub dongab daara sëriñ daara la soxla ci biir këram sëriñ daara yi ñëw fii bàyyi fi seen tànk yi ci biir kër gi nee na loolu la soxla kon jox na daara waaye nawloo na daara loolu am na solo bu baax a baax lii mooy sababu ñu indi ko fii ci kër gi ndax mbir danañ ko gis kenn du xam nu mu demee waaye ka ko xam bu ko waxee rek ñu daal koy xam. ba tey lu mu war a def la ndax maamam xaadimu rasul nee na wa agrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma kon sëñ bi jërëjëf jërëjëfati fan bu gudd ànd ak wér nga yàgg ñoo woo ñu yàgg laa wuy si li misli haza fal yaamali al aamiluun wa fi zalika fal yatanafasi al mutanaafisuun di leen xam ne jëf su rafetee rek yàlla nangu na ko te jëfi sëñ Basiiru ji képp ku yor bët dong suñ la ko wanee ci télé bi danga xam ne lii jëf ju rafet la te àndul la ngistal ndax su ko woote woon yóbbu ko fee ca jardin public ba maanaam Kébémer gépp fay dikk waaye dafa seet ñi nga xam ne ñoo ko yayoo muy sëriñ daara ñi mu bëgg a dimbalanteel ak ñi nga xamante ni si tamit ñu sax sëriñ daara te tamit jël ci poosam def ay enveloppe yor ko seet ñooñu di leen topp benn par benn ci dëkk bi di leen ko jox man am naa ci lu ma leer te waxuma pour lu neex sëñ bas waxuma pour lu neex ken damay wax sama akhulahi taala ndax sëñ bas lu muy def lu ci bari na am luma ci xam ndax dañuy diiso di deggo fum nek ci kaw suuf dañuy deggo yàgg na booba gën a tout tank te ni jomam ji ak fulam ji ak faydam ji ci lañ ko mo xam